fan yii yëpp dégg ngeen euh, euh, mbir bi dal ci suñu compatriote boobu di Idrissa Gana Gueye ndax tout simplement dafa bañ euh, boole imagem am ak soutien bi nga xam ne dañ ko doon defal les LGBT. muy célébrer le 17 mai bi nga xam ni ci la ñu boole woon mbirum góor jigéen ci mbir yu normal yi depuis 1990 alors léegi nag ñu ni dañ koy teg ay daan. presse bi yëkkati ay kàddoom dugg ci association góor jigéen yi dugg ci mais maintenant sax les autorités politiques françaises dugg ci. loolu nag la ñuy wax ni d'abord Idrissa Gana Gueye askanu Sénégal askanu Afrique ak nit ñi bëgg dëgg nit ñu bëgg ak liberté yëpp ñoo ngi ànd ak moom ci loolu te duñu ko bàyyi mu wet ci question bi. waaye surtout dañu bëgg a xamal France ne ko France moomul nit ñi. France moomul nit ñi te loolu il faudrait que ñoo xam ko déjà boo gisee lii xew nii rek ci ngay gis ni véritablement am na loo xam dafa war a soppeeku. France ñoom ñooy kan waxtu wu ne dañuy présenté comme étant ñoom réew mi nga xam ni réewu liberté lañ dañuy wax sax ñoom ni dañuy tere ku tere dañuy tere ku tere waaye ku tere ku tere kañ sa Gana Gueye sañ na ni man lii du ma ko soutenir li leen may ñoom ñu ni dañuy soutenir cause boobu moo may Idrissa Gana Gueye mu ni moom du ko soutenir te loolu dafa refléter la position du Sénégal et des Sénégalais muy ñi nekk ci bois sacré bi muy catholique yi nekk ci réew mi muy jullit ci réew mi kon la ñu ñëwoon pour wan leen ko wan leen nag ni leen benn décision sanction bu ñu jël mu jëm ci Idrissa Gana Gueye mm. réciprocité bi danañ ko appliquer fii ci Sénégal lépp luy intérêt bu France mm. danañu ko boycotté danañ woo askanu Sénégal ñu boycotté te du ñu yem ci loolu aussi lépp lu nu yoon may danañ ko danañ ci taxaw ba moom ñu bañ koo néewal doole ñu bañ koo daan bañ ima bañ a boole image am ci loolu du moom rek moo ko def wala boog li muy moo tax ñu ciblé ko wala li muy africain la wala li muy jullit la wala li muy jullit la am na yeneen joueurs yoo xam ne def nañ ko Radamel Falcao def na ko daaw ñi du takk brassard boo xam ne si mbir góor jigéen def cee nekk et pourtant coow amu ci pourquoi mu war am ci Idrissa Gana Gueye dañ nii loolu sayee loolu suñu ginnaaw la nekk la woon won ni na jeex na takk ko lettre bi déposé nañ ko léegi nii à l'ambassade de France euh, dañuy protester li ma wax nii ci wolof lañ ci wax rek xamal leen ni leen nii ñoo ngi leen di déglu ndax gis nañu sax le conseil de l'éthique de la fédération française bu ma jumul mi ngi bind bataaxal Idrissa Gana Gueye di ko wax ni ko léegi na photo wu ak euh, moyo bi ba noppi tamit na def benn vidéo dama ni loolu ñoo ngi koy xaar duñu ko ko may bu ko neexee na ci bañ na leen bañ a soutenir ñoom ils sont libres de faire ce qu'ils veulent mais moom on ne peut pas l'obliger mais bien sûr cest dire tey jii Sénégal gépp ñoo war a jóg soutenir ko ñoo ngi rafetlu soutien bi nga xam ne si président la république def na ko mais ñoom ñëpp ñoo war a jóg institution yu Sénégal ñëpp taxaw comme un seul corps pour jàppale Idrissa Gana Gueye fédération bi ñoo ngi leen xaar ci loolu mais ñoo ngi ci xaar le ministère des sports ñoo ngi ci xaar mboolem sénégalais mais loolu waru bett il faut comprendre que il s'agit la France France mooy suñu bàjjan mooy suñu sëriñ mooy suñu impaañ mooy suñu maam déposer courrier donc lan moo ci waral ce dispositif là loolu war na jaaxal ku nekk.